service de la communication seen meilleure agence de communication bi ngeen taamu seen bopp dikkati de ci ay mbir yu bees tàkk waaw mos ngeen a gis ay modélisation ak animation 3D ay voix off yu dop ci seen ay publicité eh yemuñu foofu de conception visuelle et sonore defare leen ay avis. wala sax ay flyers pays de defare leen ay logo animé leen ko ak ay carte visite du nice design bu mag c'est d'abord une équipe et engagé avec plusieurs années d'expérience zéro faute ci série ay ou les cérémonie Madame, mariage anniversaire baptême wala yeneen seen ay shooting tournage le montage avec un artistes dévoué. dévoués Pro c'est aussi des professionnels au pair disponibles 24 heures sur 24 pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au 78 504 651. 51 hey n'ayez pas peur de vous abonner retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec Momad Pro c'est dans le nom au service de la communication Spectateurs, veuillez abonner sur WAF Production, Fashion Photographie, votre label de production. N'oubliez pas, veuillez aimer, partager nos vidéos et surtout appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Sulam hmm. lo def sant kay eh? ya ci jam maa ngi ci jàmm bu baax booy la mooy sa problème ak man ba nga may laaxatu fan yëpp fan laa laaxatoo koro li nga def lan la mais dama doon julli ah yow booy da nga doon laaxatu ba dégg enveloppe bi moo tax nga ne brat ñëw déedéet dama doon julli bi ngay tudd enveloppe juli deh. Boy sih pare apa tax ma patah mais dama seru julli de booy six mois fayoo ma ne ak sa du débat débat jàmbur yi ma koy jël di fay ñi ma koy raxasal da nga nekk si kër gi mën nga ma ko raxasal ma yëkkati après xool lu ma la jox te boo paree am ngay course yow ma war a doxal tamit ma koy fay ay livreur ay nangam ak nangam booy xaj na si yow soo paree daal jël da ngay jënd fii madaar deux cent rek après mu ba yeeg affaire yëpp mu ngi fii. waaye saa yow du laa da sa xaalis bii yow dañ laa xoon ak teg-teg laa. wala man ab jagataa man la wala man damay wër di taxawaal wala man awma lu ma def balay doxal see kurkur mais ma lay ma lay raxas oto bi eh booy arrête yaa eh. yow booy yaa ngi dëkk si kër gi fayoo guddeeg bëccëg trois mois ngi ni fayoo ngay daw di laax di nëbbatu yow ma lay dimbali pour jox la mille francs wala deux mille francs yow ndogoo tey xam naa loolu moo la sama ñàkk fay boobu moo la mais loolu mag sa yaay la te yow kër gi gis naa wax dara nag lu garaaw gis nga kër gi ndoxal mi fa am yow amoo ko fi yaa mën na duul ah. ah ndoxal ma fi am amoo ko fi boo si waxee da ngay génn say bagage tey di doo finaan mu ne boo si waxee say bagage ngay jël te doo finaan si biti <laughs> Mouhamadou Lamine may nga génn soxna génn de bu am yaay génn man ma génn waay <laughs> eh, booy da lay yow man xoolal gis ne ma gis nga ni ma nii am nañ mission yu moo dem dox yi balaa dog di jot bàyyi ma dem dox ko waaye taxawal taxawal yow nga ne kër gi su ma si bëgg nga génn yow doo fi génn kër gi maanaam yow li nekk si kër gi yëpp sa yaay sama xarit xam nga sa yaay sax dañuy toog di waxtaan li am kër yëpp wax na ma ko yi ngi may def sa wax naa ko moom moo la bàyyi si biir nii rek yow ngay dox yow nag xam naa yëgoo dara li xew booy demal demal demal dinaa lay am lu ma la jënti boo bëggee teg teg nag nga woo sa booy boobu booy eh doo wax wax ku may woo xam waa yow ay goo waa yow xaaral gis nga booy bii tam ku nekk si kër gi di góor sama tànk si suuf di ko wax bu dégg bëccëg lu muy dégg waaye dina xam lépp dëgg la man nag jënd nag ma jël sa matuwaay bopp parce que léegi kër gi maa ngi mel ni amatuma fi lenn lenn lenn ah koo si wax même sama turandoo yaay bi sax léegi day commencé exagérer xarit ci loo nekk na mu naa maa na. kóor gi métti ci loo maa ngi nii rek namm la. yaa ngi nii. waa gis nga. <coughs> maa ngi nii nga xoolee ba nii. ah tamit na de. dinaa la xool. Ah, ndax lan. jël xoolal sa bopp. gis nga ni mel. nu ma mel yow. waxuma lool sax natt bi lottare natt si. ñëpp tegg na ñaari nit ñoo des. te nak nattul duma la teggil de man yi nga nek nek ma ñaaw nak ño faté déet ba ci lan xamal ne dama jox xadi gam bii nga ko jox fay yag na la fayal wa ah, lolu wala sa bop lolu am nga sama doomu nday nga nak deug neexul nag waxuma loolu waaw semaine bi ñëw naa fi sa jëkkeer ji fekk ko fi mu jaay ñak kersa ah loo ko def defuma ko dara laacc la kese mu di ma ngagne kanam ak gogo bopam bi melni warga ah warga wa ba sama jëkkeer ji nak jëkkeer ji duma ko baye jànq sa jëkkër ji li muy def xanaa yëgoo ko. lu muy def xamoo li muy def. xam nga ko kay teg sa tànk. mais man du fi nekk dinaa ne lii lay def wala lee lay def yow xam nga xalil bu baax a baax daf ko jëlee jàpp la. ah lu muy def nag. di nga ko leeral déggoo ma de nekkuma fi di la naan xalil nii xalil ne comme xamoo ko baax na. toogal fii sa moroom yi yëpp di dem yow ngay dellu gi mais nag jànk arrête boobu ba léegi yaa ngi wax xalil nii xalil naa mais yow nag sëyoo bàyyil ma sëy sama sëy nag tubaarikàlla lii lan la jànq sa sëy bii Mm. ñàkk a dugg ci sëy moom ko gënal xanaa gisoo ma. mais nag say jaamu yàlla la jigéen boo gis si kër mu toog fa di muñ jaamu yàllaa ko fa dëcc. xam nga sëy dafa neex. waaw torop ci bu la sa jëkkër bëggee. Ah. di la jox lim la war a jox. mais nag xanaa xooloo ma di la toppatoo déglu ma rek di la toppatoo. mais yow sa jëkkër talu la amul sa jot. xalil këroo kër ma nga fa fu nekk lay jaar fu ne lay dugg. waaw Ibrahima yow loolu ump la ndax xam nga ci xam nga ci dara bu baax a baax. Ibou nag li ma ko xamal tubaarikàlla mooy nopp ma ba dee la def. Mhm. lool képp laa xam ci moom. kon baax na jànk léegi nag li ma la doon wax si mooy natt bi kese. Ah. aw ma temps nekk fii dinaa natt ñaar ñett. dinaa natt incha allah benn nawle yab ma. bii moom jëluma décision fayal. d'accord nattu 2 millions yi ma la doon wax xam naa doo ci bokk ndax soo ko waxee du la nattal. maa ngi dem dégg nga. dama bëgg nga def sa bopp bi loolu. xalaatal bu baax ci li ma la wax. d'accord dégg nga. d'accord incha allah bye xalil moom nii rek la fi nekkee ku ñëw toroxal ma yab ma sama moroomu jigéen nag ah xalil nag nag nag mi ngi ñaaw lii nag sëy jar na ko ah, waaw baax na ba mu ñëw fi moom li muy ñàkk jom bu doxee ci mbedd mi di jaay sàmba àllaar am jabar joo xam day taxawal fu ne lay dem dog joon na léegi du man dogu teg yàlla moom daa teggil koor gi man man mu teggil ma ko ma bañ a wóor salaamaaleykum eh, maaleykum salaam eh, may grand maa ngi Xalilulaay Omar maa ngi ziar lépp jàmm nag yi tey gëj a gisee yow koor gi yëpp gisee wuñ ah, xajal xajal jël xajal baax koor gi daa xaw a métti quoi waaw trop sino lépp jam. sant na kamu? tayam am dong ma bay Kamu ma maa la bay ah mais xam rek. nekk ci jàng rek ah mot. tax xam nga yow tamit da nga nek si foyer tamit moo tax te man ngi si jangi. yi. ku nekk sa sa bor mais as jam ba jàmm baax. waay sant lépp jàmm. sant alhamdulilah. mais yow yow yow wute nga ak sa grand bi. si la. non. ak mère bi ni mu baaxee sedd amu problème mais grand bi ko tajee problème la lay indil. ah grand bi la mi ngi non te lu ma si gën a jaaxal mooy grand bi da ngay waxtaan ak moom du bëgg kenn di ko teg si ak si moom daal nee na jub na ba pare. mooy yow. mais xam nga rek moom tamit dafa xaw a rëy dafa xaw a xaw a rëy moo tax. moom moom maam dafa wute ak yow. yow maanaam respecté nga sa bopp. Mhm. ba nga jàng kenn doo kenn doo dugg sa si lu nekkul sa mais moom fu ne lay tuut cappe lu ne mu bëgg a liggéenti ah mais tamit. ah metti xam nga rek loolu tamit def si intervention du yomb. ah parce que il est plus facile de reconstruire des enfants forts que de euh, réparer des hommes brisés. <laughs> Amadou Lamine Maïga. mune ah man fatana naa yak mom sore wala ah <laughs> wa man tamit mani manam maanaam gë doon na gëna yom ñu jubbanti xalé ke ñu dem di jubbanti mak ah wa wa wa da sax olof da mel waxon na ne mat ci toy toy bi lañ koy jubbanti su wowe di nga dama baaga dam dëgg du rom nopp lool xana dégg nga ko nak sa dégg na dëgg de mais li nga ma wax ni yaa nga koy wax mom mu yow lu raw li la koy wax te saa yi saa yi ko waxee man damay bëgg door mo tax damay daw il est têtu mi non dama dëgër bop te xama lamagne bi def si su poos bi ah mais nag xam nga rek moom moom sama eh, grand la moom. doy na waar. mais <laughs> yaa yaa ma fekk may ñaxtu léegi. Uh-huh. gis nga si ba léegi noonu ndox jot na. ah déet loolu yoon moom heure ndox ndox mu jot même pas ay 15 ngi takk sëy kat ma takk taxawaalu kat. ah déet déet bul wax loolu nag xam naa daa nekk si ku être sax si yow la nekk. ah mu lay waajal surprise soxna si moom xam fu nekk lay fëlee mais xaaral. man maa ngi daw man balaa heure ndox di ma. fekk daw waaw waaw. waaw dara yow yow kontaan ok jaay maa ngi daw Nima Mary White. Ki aman. Boyega doba sani tandar ma. Dem na sax. Yàlla baax na. Tey ma wàcc dem jënd tàndal Chers téléspectateurs, veuillez abonner sur WAF Production, Fashion Photographie, votre label de production. N'oubliez pas, veuillez aimer, partager nos vidéos et surtout appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer.